ma bu leen xamal ne tey yéen samay mbokk képp koo xamante ni yaa ngi àndoon ak man tawal naa la loxo bés ni ki tey jàpp leen ne maa ngi ginnaaw docteur Macoumba Diouf képp koo xamante ni ginnaaw muy sama xarit muy sama am di jamen maa ngi ginnaaw docteur Macoumba Diouf kon Macoumba dinañ la xamal tey bu fekkoon ne tey loo bay ñoo lay xañ cent pour cent jàppal ne suba neel huit dix heures am nga cent pour cent ñun du ñu xuloo du ñu xeex du ñu tongande c'est la première fois mooy wax ci mbooloo waaye li ko jar moo ko jar docteur Macoumba Diouf kum seet il faut nga taxaw wax kon dinaa leen sant di leen gërëm di naan yàlla yaakaar bu tax ñu am mbooloo bii nii yàlla bu yaakaar tas. booy jàppale jàppal ki la war a jàppal ki jar jàppal ko am ngor jàppal ko am teraanga te Macoumba Diouf am na teraanga am na ngor man nag dëkk ma fi maa ngi dëkk Kër Mbaye Ndong waaye fii laa juddoo yaroo fi say Kër Mbaye Ndong waaye dama lay wan ne Macoumba Diouf barke Baye Niass man Baye Niass bu ma ko gëmee si caaxaan man Cheikh Tako Diouf li nga man nag la dëkk moom laa àndal Sira Ndiaye loolu ma bàyyi ma fenn fekk na ma man nag yéen fekk ma kumal may ànd ak Seex Tàpp te Seex Tàpp Juuf moomu moo bañoo ànd kon xamal ne man yow laa àndal te may doon ñoo fay yéen a fay seef te ma juddoo fii nag yaroo moo tax ba ma déggee ne yaa fi ñëw mu jaral ma déplacement ak dérangement ñoo fekk fenn. ma kumba ñu ngi lay dénk bu baax a baax kàddu yii nga xam ni. dëkk bi incha allah bu neexee yàlla di nga fi am doole loo bay incha allah bu neexee yàlla dina la jàppale te man mii di wax ak yow incha bi lu ko remporté biir euh, Kaolack région Kaolack dinaa ko def parce que man ak yéen ñoo far Samba Ka maa moom ñoo bokk ci cogère bi Anta Diagne aussi ñoo ñoo donc dana am cogère et aussi Pape Champion kon ñun li ñu war mooy gën a doole suñu boole suñu doole boole suñu lépp ngir au soir du 25 février ñun ñu xam ni kat. Macky Sall ki mu samp amal nañ ko njëriñ fii biir commune de Latmingué. tey su ma kumba fii tey monsieur le maire tey ñu ni ko fii tey ñu di ko géewal nii comme ni nga ko waxee woon kër ga yàlla ak Aïssatou Diouf moo tax moom ak Ablaye Sow kon ñooñu ngi leen gërëm ñu ngi leen sant monsieur le maire suma tante mi ngi mu ne mi lay gërëm mu ne mi ngi lay sant bu baax parce que si gir nga ko di diggu kumbal sagal nga ko di diggu kumbal. ba fu ko neex mun na fa génne te kenn du ko joxoñ mooy ne loolu su amee mu ne yow la yaa tax mu ngi lay gërëm mu ngi lay sant mun ne mi ngi gërëm waa que mënoon na oote ñëw mu ne mais heure bu ootee mu fees del mu ne donc waa Koumbal mu ngi lay gërëm. monsieur le maire man ma ci ñambaas ne gëm naa lu Senghor waxoon Senghor nee na politique course de fonds la ne ko course de vitesse course de fond la te gëm naa ni endurance course de fond mooy endurance kon Mansour bii. andu naa sa mom, man ak moom pendant 3 ans maa koy top kon mom ku jara a la ma diko top diko top ba té ma indi ko tak sa loxo kon Mansour malai lay gërëm ma lay sante mo la ñaaw mo na bañ mbala mo a ci def leneen mais yar la man ak teggin di mu di bañ may waxtana mo di bañ ma wax bam nangul mako, ma ñew ko tak sa loxo kon gàcce ngaala ma Mansour yaa say mbokk ma ngi len di dalal fi

ndax mooy président wu parti bi mooy président wu coalition bi muy benn Bokk Yaakaar waaye moom laa tuddee président guléet kon président guléet bu amee luñ naan guléet ci biir Koumbal jomb ko mooy président Macky Sall wax naa ko ñi ko wutu liggéey nañu waaye ku nekk xam ne buñ doon bilan bu trois président de république yi jiitu teg ko ci balance

Sougou Gari li tax wax li nag mooy taxawu Sénégal xam ngeen ne tey jeex na fii ci commune bu Latmingué jeex na fii ci Koumbal ndax taxawu Sénégal dëgg-dëgg mu ngi tudd Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar mooy taxawu dëgg-dëgg Sénégal ndax li ma wax mooy taxawu Sénégal waaye taxawu Sénégal boo nga xam ni duñu la gis duñu la dégg xanaa man de man de naa koy gis ndax dañuy daje conseil municipal te mu am xalaat yu rafet nag waaye am ànd ci di di génne xalaat yi moo gën a rafet kon xam naa ne mu ngi may dégg xam naa ne su may yegg mu ànd ak Moussa mii di tam doom deyam ne ma audience foo ko soxla rek ma accordé la ko kon du fii rek lañ soxla ndam ci suñu commune suñu arrondissement ak suñu région dañoo soxla ndam fépp ci Sénégal ku nekk xam nga ne lawbe yi ñoo neexoo ñëpp bokk ak ndax lu neex lawbe yi fekkee nañ ko lu weet lawbe bokk ca kon nag waxuma dara nag ma yokk ci njiglaay li ngeen doon ca maam ba léegi ci askan wi loolu duma ko wax kon nag booy wuti dara sax ñooy jëlee nangamu lawbe waa lawbe kenn du lawbe waaye jërë ngeen jëfati di gërëm ñëpp di leen wax ba ci jamono yi incha allahu rabbi talal leen loxo bu wér ñu ànd def liggéey bu rafet président Macky Sall am ndam